Et euh, kooku nag mooy Kane Diallo Welbon euh, un très bon euh, son voilà j'aime bien ce morceau parce que tamit euh, dafa am lu may fàttali lu yàgg un dimanche petit déj week-end m'a invité ko avec sa guitare sa belle voix Moi, elle ma j'étais séduit Mon mi nga xam Diallo Kan Serigne Abdou Karim Mbacké borom al Akhla nga gént ko naka la bi demee gannaaw gént gi est ce que euh, jàkkaarloo nga jëmm ji musuma ko gis yàlla xam na loolu musuma ko gis et c' une histoire réelle mm-hmm. maanaam euh, dama dama ko gént mm-hmm. naturellement musuma ko gis musuma ko jox loxo musul am mais xam naa benn doomam boo xam ne tamit musuñoo gisante te dañuy wax téléphone dañuy wax par message mm-hmm. muy presse màkke maa ngi koy nuyu de passage Eh, gént bi noonu la demee ni ma ko wëyee. yàgg na la ko génteeg léegi. non yàgg na morceau bi yàgg na morceau bi def na quatre ans ou cinq ans. Mhm. ah su ma juumul. def na ay ay at. Mhm. donc ni ma ko géntee noonu laa ko wëyee. Mhm. et eh, allah ma gis. mën nga ñu nettali gént gi eh, si naka la la feeñoo. waaw dama dama tëdd guddi. gis benn benn. nit ko xam ne genre karaw gi dafa weex tàll xam nga ànd ak benn leer mm. euh, mu mu mu mu toog ñu koy ziar mm. ñu koy ziar mais man dama ko seen rek xam nga ma war ma mel ni ku war a dem ci moom nag mm-hmm. ma mel ni ku war a dem ci moom mais demuma ci moom xam nga après nag ba ma yeewoo mm-hmm. euh, man xaw ma woon kuy bàyyi Karim xaw ma ko woon noo xamee ni moom ci gént laa ko gisee la ñëwee waaw après nag mm-hmm. image boobu noonu des sama bopp. Mhm. benn jour laa toog jékki-jékki ñu xaw ma nu mu demee noonu xaw ma ci euh, ci réseaux sociaux yi laa jékki-jékki rek gis jëm ma ne mais attends man kii laa gént. kii gis. noonu la demee ndeysaan te mosuma gis Baye Karim mu même téléphone yi xaw ko woon en fait. mais ci gént la ma njëkkee. feeñu feeñu voilà mais euh, <laughs> quatre ba tey demoo si moom lan la euh, dafa jotagul. su ma woowee rek. su la woowee. waaw dina la woo. Mbacke ñoom ñoom dañuy toog. Uh-huh. non su su ma waxuma mu ma téléphone. xam loolu je veux je veux dire. dina la woo ñoom dafa am. heure ñoom ñoom boo leen di seet. heure bu jotee rek. day jot waaw day jékki-jékki rek. maa la dégg jour boo fay dem. Mm-hmm. doo xam li lay yóbbu sax doo xam. ak lu lay motiver pour nga dem. Ah, wala mais pas motivation. Mm-hmm. motivation bokkul sax. Mm-hmm. ak li may wax. maanaam booy dem ci ñooñu. dafa am lu lay yëkkati. dafa am lu lay indi. lu lay yóbbu. dafa am mom ci dafay ni je fu mu comme ni mako que je la lay démé ni la jot na jot ak jam je nga ak mom ndax ak mom xewal la euh, si si si si conseil en tout cas li mo meuna wax si mom moy képp kuy génn télé wala bok ñi ëpp si génn télé xamé na leen tay bo bo sa wax sa tour dina jaar sa tour parce que mi suivre taalibe Cheikh. man taalibe Cheikh bu Cheikh Abdou Karim. waaw voilà. mais lu yéeme moma dal ci. Abdou mm. Karim Baye Karim. Mm. xam nga. Mbacke Ball. waaw ndeysaan. et que machallah de loin man dama koy sétane dama koy xol ci réseaux sociaux et tout. Mm, mm-hmm. mais euh machallah dafa nek ko xamné dal ah Sénégal bu yabo ñu japp ko bu baaxa baaxa baax ñu xamné amna ko ñu yalla séddee ko xamné nitu yalla la macha mm-hmm. allah. away tuma ki lay mujjee way maa ci ñi la way li ma wóor te wóor li ma wóor te wóor yaa jàlle jaam yow